man de sama benn copine moom ma envoyé vidéo bi dama sax waaru yéen dëkk bi wëratul de gis ngeen xale bu jigéen boobu di dugg sama copine la am na keneen ku nekk ci biir lii multi service la ñoom ñaar ñi ci nekk ñëpp sama copine lañ vous voyez yéen xool leen rek après mu am benn client bu dugg si léegi sama copine bi moom nee na kii dafa dugg si rek commencé di agité wu di agité wu te daf ko daf ko jaawale rek wax ko xaw ma ban tur nee na mu commencé di agité wu naan ko tudd ma noonu gis nga ni muy yëngalee loxo yi lu tax nga may wax loolu affaire yooyu noonu en plus di gën a jege porte bi nee na ci la xelam ñaaw mu verrouillé porte bi ci biir waa ji nag xamul woon ne verrouillé na porte bi te comme vitre bi teinté la waa ji gisu leen tu comprends léegi nag ci du ki mujjee dugg noonu moo toog sama beneen copine bi nga xam ne sama meilleure amie la moo taxaw ci wetu porte bi moom waji gisugo mais moom xelam dalul mais yeen jël len sen temps rek ngeen xol vidéo bi bu baax non dekk bi worul wor na yalla c'est malheureux li gis ngeen numu taxawé ci wetu porte bi voilà dafa ne daf sama copine bi nee daf ko laaj ndax riya amna na ko amul booba légui muy chercher ay excuse wax lu ne xol len xol len gis ngeen gis ngeen waji jaati bi mu génné waa kii ban façon nit la kii mooy imbécile léegi xool leen rek instant bi lu ne mënoon na xew bu fekkonte ne verrouillewul porte bi léegi sama copine bi il a fallu mu déclencher alarme bi ci la waa ji gaawantu génn